Sonko Adji Sarr vaccin yaa ngi ne jot jamono ji lëmbee coow li xoolal ma Afrique du Sud Cyril Ramaphosa Cyril Ramaphosa mi njiit ba ma ngay wuraat pexe de ngir yeneen ay vaccin xaw ma Johnson Johnson and Johnson 1 virgule 3 million yi ñu amoon lu ëpp boog lu koy yées 1 million la yaakaar naa ci ay AstraZeneca bar benn baaxut ci benn baaxu ci benn baaxu ci vingt pour cent d' efficacité ñu ñuy tuur lëndëm ñu ne wut nañ beneen ni parce que soixante dix pour cent de la population ñu vacciné ñu ne ñu moom ñu ngi toog ne danañ leen deux virgule deux milliards pour ay vaccin waxuñ bu kenn vacciné wu de dëgg yàlla vaccin yàgg na Sénégal yàgg na fee wante wolof def ne yàkkamti ak gaawtu bis bu ñu juree doom rëccu lay tudd yàkkamti ak gaatu waxtu wu ñu amee doom rëccu lay tudd nañu def ndànk ci vaccin yi étudier ko bu baax de façon profonde malheureusement ceux qui doivent mener le débat ñi ko war a def di les scientifiques ñoom defuñ ko les médecins chevronnés ñi ci war a wax waxuñ ci ñun daal xam lu ñuy wax sur sur si junni ak juróom nangam nangam nangam nangam kese ay résultats chiffres course vers des chiffres publication des chiffres ci la ñu nekk nañu xool li ñuy dugal ci réew mi juróom xam plus de six sept ay vaccin koo kii bokkuñ géographie yi bokkuñ environnement yi bokkuñ système immunitaire yi bokkuñ waxuñ bu kenn vaccin waxuñ vaccin baaxul mais nañu xool def prélèvement yi ci war ndax loolu suñu askan mën nañ ko ndax population bu nekk Chine seen système immunitaire est-ce que si naa forme boobu moo war a mën a baax l'OMS organisation mondiale de la santé nee na yee pays à faible revenu ñi seen alal demewul noonu ma ne ma cee rax doole sax ne nañ ci moytu dugal géopolitique xamul tey lu tax ma wax loolu bu dee France ak Sénégal dañoo am cordon ombilical am ay lien ñu ne léegi France jël na Pfizer wala nangam Sénégal ne donc France li mu jël lay jël parce que ay intérêt la ñuy doxal France duñu xool intérêt yi wér-gu-yaram nit ñi. ñu ñu gouverner nañu def ndànk attention sur ces vaccins question géopolitique bu ci duggee rek musiba la ñuy jural te xanaa nag kenn du jiite soo askan yéene leen musiba pour man de président Macky Sall xanaa yéene mooy que bu Sénégal jag jëm kanam nit ñi nekk si dans de très bonnes conditions wala nekk en bon santé malheureusement réew moo xamante njàng mi daa sooxe santé bi sooxe demal ci yenn santé santé ma man da bul fay wante des na ay murit ay taalibe dogu defar barab boobu état war a gën a accompagner xoolal centre sous traitement bu fa nekk. ñañ jëlee Thiès ak yëpp ba saa bi ci décédé man madame soxna soosu mbay manque d'oxygène boo demee ci lal yi nga xamante ni ña fay tëdd si hébergement yi boo jëlul cabine lal yooyu noonu nit ñi tëdd déglante nii seen dañuy xeex mbas yenn médecins yi amuñ outil yi. ay àll ji jël ci vaccin yi ñu xamagul nu mu mel te ñoo gën a doole suñu institut de santé yi suñu kër docteur yi jox leen ay jumtuwaay mat loolu moo ëpp solo équiper leen parce que ñoom ñoo gën a nekk des personne à risque ñoo ñoo ñoom ñoo exposé wu femme bi décédé manque d'oxygène ñu wër wër la ko jang-jange ko fu nekk indi ko Matlaboul Fawzeyni mu nekk personnel de santé sage-femme mu ñàkk bakkanam